liggéeyal maam Cheikh Anta ba nga am ngërëmam walbatiku liggéeyal Serigne Modou Moustapha Mbacke ànd ak moom ba am ngërëmam walbatiku liggéeyal Serigne Fallou ba jiitu ko àjjana borom cër yooyu lañuy ñuy bëgg a waxtaane muy koo xam ne waxtu wa muy am ak melo wa mu yoroon yàlla dafa fay Cheikh Ibra liñ ko doon wax naan dof la baata dof bi xam nga mu ngi jóge ci alquran wa isa xiila lahum kama amana قالوا أن نؤمن كما آمن السفهاء بعد بابو صحابي ديغون نينكو شيخ ابن فال نيو بعد بابو مو دونات كو سي صحابي واي نك ليكو يالا فاي موي ني اوب خيل تي ادنا سن بروم تخ جوخ نكو شيخ ابن فال تي سيغ مود مصطفى فال تي لا تي دي نانتي واختان تيم خلام ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo waxon ne yalla bindul lu gëna tedd bindul lu gëna kawé xel mu rafet te dinañ waxtaan ci xelam mu rafet moomu ba ñu xam ne murit xel ma dafa war a rafet te jub yéeneem sell sëñ Modou Moustapha Fall Baye Basirou Mbaye nee na ma ànd na ma moom ñu jël àddiya di ko jox Cheikh Ibra Fall bi ñu nuyoo Cheikh Ibra ci parenteer bi mu yëkkati àddiya ji ne maa ngi topp ci ginnaawam. Cheikh di jàmm santeeg moom ba mu yàgg mu yëkkati addi yi ji tàllal ko ko Cheikh na ko mustafaa lii lu mu doon mu ne ko sama addiyal mu ne ko man duma sa sëriñ bay lekk sa addi sëñ Bambay sa sëriñ di suma sëriñ demal nga jox ko ko saam kodd nag ak saam ki yow la war waaye sa addiya du ma ko lekk mukk demal jox ko sëñ Bamba mënuma lekk sa addiya mooy sama sëriñ di sa sëriñ ne sëñ Modou Moustapha Fall ca xel mu rafet ma ne ko def nañ ko am code akum tëbaski Cheikh Ibrahima Fall soog koo nangoo jël nit la woon koo xam ne sëriñ Soye bu Fall nee na ma soxna muumi mu sëriñ Touba nee na ko ñun waa kër sëriñ Touba yi sëriñ Modou Moustapha Fall defal nañu loo xam ne kenn la defaluñu ndax bi ñu ñëpp umpalee xamaguñu luy wëlëru doomi sëriñ Touba ñun surtout ñun ñu jigéen ñi nga xam ne booba kenn xamul amuñu doole kenn yaakaaruñu kenn toppuñu amuñu dongo nee na booba lañu sëñ Modou Moustapha Fall bàyyi woon kenn ku ne ci ñun ci doomi Serigne tubaayu jigéen ñi jëlee naa ñu góor ñi ku nekk daf la wutaloon solde di la ko fay weer wu dee wu ne weer wu dee wu ne foo nekk soxna muumee ko nett li foo nekk sa dund dana la fa fekk mu jël ab dongo ciy dongom boole ko aw fas ak sareet féetale la ko mu di la rootali di la demal ay yónent di la sant foo jëm lu diis mu yanul la mu ne ko ñun doomi Serigne Touba ñëpp lu ci waay niiw niiw ay at noonu la la defaloon daal ne ko li nu yéem nag mooy yéene jooju nit mën na ko am sax waaye man gi nga dul man wala boo amee yéene ji am man gi xelum def ko nga dul am moom mu boole yéene ji ak man gi ak am xelum def ko daal ne ko noonu la ma doon defal di ko defal samay morom ba niñ ma jëlee yow jox ma sëñ mu daaw a bàlle ca Daaru Muxti ñun ñëpp kenn ku ci nekk solde la la wutaloon amul jenn doomi sëriñ Touba jëm masa neenal bu masaan ànd ak Cheikh Moustapha Mbacke dañu ànd ndar mook Cheikh Moustapha am sëriñ bu fa nekk ànd ko taalibeem taalibe bi ne ko bu ñu demee bàyyi ma gaañi rek senegal dang naam rek a fi ne booba général de moo waxoon ne nañu convoqué sëriñ yi sëriñ si biñ leen convoqué moom Cheikh Modou Moustapha Fall mu ànd ak Cheikh Moustapha Mbacké bi mu demee lim jëkk a def mooy jabari jabari commandant bi bi muy nuyu sëriñ si sëriñ su bari dañoo am kersa jox ko loxo bi mu tolloog Cheikh Moustapha la sëñ Modou Moustapha Fall ne waral seen diggante jox ko loxo ne ko kii du jox loxo jigéen mu ne ko yow nag lu tax nga koy jox mu ne ko man mën na ma koy jox ndax mbaay mbalitam dama ànd ak moom lu mu tilim rek sotti ma ko loolu rek laa ànd ak moom man maay ki nga xam ne lu mu tilim le rek sotti ma ko waaye kii du nuyu jigéen sëriñ boobu daal di ñëw ànd ak taalibeem mu di ko joxoñ di ko tagg di ko tagg ba jotaay bi kenn du di déggul damaa bëgg ngeen déglu bu baax li sëñ Modou Moustapha Fall di def foofu di ko tagg di ko tagg ba ne ko yaay baabul ulóom sëñ Modou Moustapha Fall jóg ca teggin ya romb fa ka wax dem ba ci sëriñam fulla moo ko ëppoon ci àdduna fayda moo ko ëppoon ci àdduna musta wax nit mukk defal nangam nga bañ loolu moom nee nañu diiru dundam yàlla mayoon na ko lu mu sant nit nga def mu waaxu ba ci sëriñ ba daal di sukk nuyu ko ne ko sant woo mu wax ko santam mu ne ko man Fall daal ne ko xam nga kële tooga mu ne ko waaw xam naa ko kay mu ne ko xam nga ne mooy Cheikh Moustapha Mbacke taw Serigne Touba sëriñ boobu ne ko waaw mu ne ko mbaa xamoon nga ne mu ne ko mbaa xamoon nga ne diine ku ci dajeek doomi sëriñ Touba yaa war a jóg nuyu ko déggal fit woowu ci jamono jooju. waaye boobu mooy Cheikh Ibra moo tax mu ñeme loolu mu ne ko mbaa xamal nga ne diine ku ci dajeek doomi Serigne Touba yaa war a jug nuyu ko kooku ne ko waaw mu ne ko nañ ànd dem nga nuyu kilifa googa a ànd ak Cheikh mu Fall ñu dem nuyu ak Cheikh Moustapha Mbacke jàmm sant ba napp mu gungewaat ko ba fa mu toog mu toog. gëstu ka wax ne ko yow nag laay waxal àggal suuf waa ji ne cuub àgg suuf mu ne ko wax nga ba wax baat boo xam ne boo ko xamoon doo ko wax baabul ulum sant bu mel ni man lay am kee toog mooy baabul ulum mooy taw Serigne Touba yow nag bu ma déggati sa baat nee nañu waajooju keroog la ñu bi dégg baatam maanaam fulla ji mu yoroon ak pastif bi mu yoroon ak yitte ji mu yoroon ak yërmande ji woon ci moom sëñ Modou Moustapha Fall bu sëriñ Touba Masaan wax ne woowal leen ma mustafaa sama moom moom la ñuy woowi mustafaa sama moom su ko Masaan wax sëñ Modou Moustapha Fall lay bu ko defee ñu woowi ko mu ñëw daan sëriñ Touba daana jël nit kuñ ko jox woo ko ba mu ñëw mu ne ko Moustapha kii yóbbu ko def ci li nga ci war a def bu bés pencee naa la ko laaj kon kooku kooku ku rëy ay martaba la Baye moom mooy firnde ji eh, sëñ na ko xam na ni ma ko jege woon baayam buur la woon moom mu judd silmaxa boobu baayam ceddo la baayam ne man duma jur silmaxa dama koy reen xam nga ceddo yi lana lañ dan def duma jur silmaxa dama koy reen bajjanam joy, ne ko bu ko rendi jox ma ko am na sëriñ bu ne ci penk kooku loo ko jox mu jël ko defar ko mu ne ko kan la mu ne ko Cheikh Ahmadou Bamba bañul benn mbindeef xeebul kenn te lu nit yàqu yàqu buñ ko ko joxee mu defar ko teg ko jox ma yët ko nee na boobu Senghane Fatma laa tuddoon Senghane nee na sama bàjjan boole maag ay jaam ak i fas ñëw ba ci Serigne Touba jox ko Serigne Touba delloo jaam yi ak fas yi daal koy jël ne ko noo tudd mu ne ko Senghane mu ne ko Ibrahima Serigne Touba ne ko Ibrahima moo gën Senghane tudd naa la Ibrahima téye ko ba mu am ay fan mu woo Cheikh Modou Moustapha ba mu ñëw. mu ne ko kii yóbbu ko lu mat a def ci moom na nga ko ci def bu bés pincee dinaa la ko laaj te Ibra Mbóoj moomu nee na ma nit ñëw na ca kees ngir wan la Cheikh Moustapha li ko yàlla mayoon Cheikh Moustapha Fall nit ñëw na ca kees di jàng ay wolofal yu Cheikh Samba Diarra Mbaye mustafaa ne ko man de wolofali yi Samba Diarra daf may soññ daf ma neex lool suma sañoon di ko dégg bés bu ne nee na ma jooy ne ko man de bu ma sañoon loo bëgg ma def ko waaye aw may bët mënuma jàng te sam xel neexul Cheikh Moustapha Fall ne ko loolu moom bu mu la naqari dinaa ko def ci yow moom de nee ma tëdd ba guddi mu dikk taxaw ci bunt bi moom Cheikh Modou Moustapha Fall ne ana Ibra Mbodj ma ko maa ngi ne bëreet mu dajeeg man daal di may dóor aw xët ci dënn ma daan mu romb ma mais ba ma xëyee ñeent fukki xasida tari naa ko keroog ak wala fali Cheikh Samba Diarra yëpp nee na daf ko daf ma ko sol ci génn guddi borom Pastef la woon boo xam ne murit yépp war nañu dégg Pastefam sëñ Cheikh Fall nee na ma borom Pastef su waxee toujours yow mi amul Pastef da nga defe ne yow lay xas loolu sax day am ci jotaay yi léeg-léeg nit waxee fi mu toll nga defee ne dalay xas ndax yow sa pastif moo rëyul nee na bi sëriñ lu Mbàkke mu baax mi ne miraas naa sama lépp def ko ci jumaa ji ne ñëpp def ni man boobu sëñ Fallou desewul dara lu mu am jaay na ko woo seex yëpp woo ñëpp na leen liggéey sëñ Tuubaa bi lu waay am jaay sëriñ sëpp toog ñu ubbi ab carnet Cheikh mu Fall ne nañ ubbi ab carnet kenn ku ne na wax li muy sasoo am na kilifa gu baax yàlla na nu yàlla taas ci barkeem ba mu nee sasoo naa téeméeri junni ñépp dañoo tiit ndax boobu téeméeri junni nu ko nit di amee nit ku ñuul nu muy amee téeméeri junni moo jaaxaloon moom nga xam ne ñëpp dañ ne kii de li wax ndax dina ko man ñu bindu kenn ku ne di xas nit ñi di xas ku ne di bindu ba bindu ma àgg Cheikh mu saafal tëj carnet yi sëriñ boobu ne ko ah yow sëñ Fallou ne ñu bindu ñëpp bindu yow binduwoo fan nga ko teg mu ne ko man bindu naa bu yàgg man bindu naa jumaa ji feeg mu ngi fi rek du ma am dara mu ne ko yow daal saa boo waxee rek musuloon looloo nu waroon ñun ñëpp ndax sëñ tubaa lu fi nit am ma la ko defal kenn ku ne sa engagement ci sëriñ Touba dafa waroon doon feeg liggéeyu sëñ Touba nga fi doo am dara bu buñ ko mësaan digal du joxe dépense dootul leble dootul maye dootul saraxe te ndigal li àggul it këram kenn du fa dëkk day ñett buntu kër gi sëñ mu daamin tafaal mu baax mi moom la roy ba gis ngeen xel kom bu masaan am day ñett buntu kër gi kenn du ne ci kër gi moo tax suñ Fallou wax na ko ci néeg màkk googu ci Thiès di xol seigne moussa Fall bam yag mu ne ko ndokk bi nga santul mbacke boo santon mbacke li jël nu wit way ci taalibe gi ak baax ga mu ne ko mbacke man sant mbacke daf ma jom ndax man de mbacke mbacke mbacke bay botu xamew mako seigne touba fofu la ak taalibeem ne ko nee mbacke Mbàkke Mbàkke bay bootu ko seigne touba kon seigne Modou Moustapha Fall limu mu boole dafa bari war nañ di ko mën a roy bu baax a baax a baax baax di topp ci tànkam ci fit wi ci gëm gi ci xel mi ci fonk sëriñ Touba jox Serigne Touba léppam bari yërmande lool nag nee nañu bu nit masaan feebar wala mu am soxla soo dikkee toog soog sukk ci kanamam ñaari baat la lay wax rek nga fàtte yow la la daloon te ku bëggoon ay rakkam la moom la ñu wax ne moom rek nga daan gis mu taaj ndab fukki rakkam fukki yu mu baay daana wax naa lii ci man ngeen koy mujj gis te loolu bareetul taaj ndab sa fukki rakk sukk ci wala fukki yu lu ëpp fukk ak nangam loolu moom la ko yàlla mayoon ndax rakkam yëpp yemalewuñu ko kenn ndax ni mu def sëriñ kon nag kooku bu ñu sama borom mayee ñu war a waxtaan ci moom war a waxtaan ci ay jikkoom war a waxtaan ci ay meloom nañu sant yàlla bu baax a baax a baax te xam ne sama borom def na ci moom barke ak yiw ak gëm sëriñ bi dégg ko sëriñ Moussa Ka mu wax mu ne bàyyee saxaar doomay woto kuy xamle yàlla du fi të ku ji àndaar góob ca mata jiyal ci taw bi bax baxi ba ko defee ah Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall gis ngeen téere bi Serigne Moussa Ka ko way ci moom léegi li ma ko Serigne Mbacke Fall jox baat yëpp way yëpp mu ngi tànnoon mu ngi daanoo jafe na téeméeri way la ak fanweer fi Cheikh Moustapha jaar yépp ak sëriñ bi jaar fa ak Cheikh Ibra jaar fa ak njabootu sëriñ bi jaar fa ak liggéeyu carrière bi jaar fa ak i rakkam jaar fi ak magi taalibe jaar fa ak ci ni mu def ci réew mi yëpp Cheikh Moussa Ka way na ko ci téere bi kon nag loolu rek dafa doy sëkk misaal ci ne sëñ Modou Moustapha jëmm la joo xamante ne ji du mat a fàttali ko dafa am lu am mooy nit la woon koo xam ne kii lu jafe ci jamono ji la ko yàlla defaloon mooy ku mënoon ab noon la saa boo ko noonoo dana la dimbali di la teete di la naxtaan ba nga dellu si mu gënal la ñëpp te loolu ci Sëriñ Tuubaa la ko roy ak yonent bi am na bés mu woo benn koo xam ne kii mosu ko jublu ni ko dama bëgg nga dem ci sama waxande seet ci sama yére yi may waajal lu la ci neex nga jël koo ko dem ca daal di cay defee nu ko neex daanaka yëre yu baax yëpp mu jël génn na ko yii laa tànn mu tegal ko ci xaalis bu bari ne ko demal demal ci sa jur jur gi demal ci sama jur loo ca fekk fas wu la ca neex nañ ko jël mu dem tànn fas wa gën mu ne ko leneen lu ma yoreti foo ko fekk na nga xam ne yaa ko moom te xam na ne kooku jublu waaye kooku jël yooyu wan ko ginnaaw di dox ba mu yàgg mu ne ko mënuma laa bëgg nag waaye yaa gën ci waaye nag mënuma laa bëgg mu daan ne waaw lii dama ci kuy def kuy def ak ni sa noonu ñëpp dañu xam ne moom moo mel ni waaye yow mele woon loolu rek laa bëggoon ñëpp xam ko nga xam ne waa kër Serigne Touba yi buñ masaan daje ñoom ci seen biir di waxtaan moom ci boppam rekk la ñuy bàyyi mu toog ci seen biir bu ñu waxee sëñ Fallou ne mag ñoo moom bokk bàyyi sëñ Touba ko jur ni ñu juree. tubaab yi dañ daan jóge ba France ñëw di yéem xelum sëñ Modou Moustapha Fall dañ daan jóge ba France te xam nga tubaab ko mu yéem sama xel di déglu si ay kàddoom ngir jëri ci lu ñu mën a yore àdduna te ñun ñu ngeeg lu toll noonu te xamuñu ko am na tubaab bu ko mas ne ko lan moo tax doo étage lan moo tax yow Serigne Modou Moustapha Fall doo dëkk ci étage mu ne ko man sama taalibe mayu ma may yéeg escalier ndax su ma dee yéeg escalier toog ci kaw dafay mel ni maa ngi yëkkatiku te Serigne Touba du fi ne may yëkkati ko génn yëkkati ko kenn di ko gis ne Moustapha ngay jéem a yéeg loolu tax soxlawu ma étage tubaab bi ne ko loolu de ceew laa ko mas a dégg waaye ni nga jekki àdduna ni nga ko jekkoo ak li la yàlla may loolu rek laa tabax étage yow daal ko doy waar nga kon nag kooku suñ borom mayoon na ko loo xam ne lii lu jafe la daraja ji mu am nag boo xoolee sëriñ Cheikh Fall Baye góor xool sëriñ Modou Aminta Fall xool sëriñ Cheikh Jëmb Fall di nga xam ne ñii seen bàyyi mu am na ngërëmal yàlla waaw kon nag noo ngi leen di sant bu baax a baax a baax te di leen xamal ne kii ñu tànn tey tànneef la ci biir tànneef li ma leen waxoon rek keroog ba mu génnee àdduna Cheikh Ibra dafa sëñ sëñ Modou sëñ Fallou dafa wax ne kii de maa ngi giñ ci yàlla ne juróom-ñaari cëram yi musu da def lu naqari yàlla daal wax ne maa ngi giñ ci yàlla ne am na ngërëmal Serigne Touba am ngërëmal Cheikh Moustapha am sama ngërëm te ñi mu àndaloon kenn jéppiwu ko kon nag defe naa ne loolu doy naa jàpp kon dama defe dama dama war a jox sëñ Mbàkke mu àggalee waxtaan wi ci Cheikh Moustapha am na benn waaye bone ne murid yi li tax seen jotaay neexut a dem ñu ne ko ah mu ne ñoom boo fa demee bernde yi day bari déglu leen bu baax kooku li mu wax nii naan yi dana bari fruit yu bari lekk yu bari waaye murit ñu yeewu lañu loo fa lekk wala loo fa naan danañ la ko laajal ak ñu <laughs> dangay xool kooku maanaam xoolu kooku ni muy calculer àdduna ni mu doy waar mooy ñu alxuraan di wax allazina yëpp xàlluwu na wa yaamuruna naasa bil buxl ñi nay ak ni yàlla bañ a nay ba noppi ñuy digal nit ñi ci nay liggéeyal waa ju baax Cheikh Ibra fi la ko fekk daf koo yóbbu fu ko kenn mësta yóbbu yent yàlla muusa ba muy dox di gàddaay di daw ngir ñaar ñu ma doon atte kenn ki yàlla dogal mu faat yent yàlla Moussa di dem Madiyaana kër sox kër yontu yàlla sooy yi dajeek ñaari jigéen ñuy root te amuñu doole ci gàttal mu jàppale leen ñu root ñu ne ko nañ dem sunu baay mu fayal la li nga nu jàpp li nga nu rootaloon waaye bañ demee foofu liggéeyal waaju baax la alxuraan bëgg a wax foofu ba ci la andi sax misaalum yoonu géej gi Sëriñ Tuubaa demoon samaani xijjajin alquran sëñ Tuubaa moom la def ila xalila yont yàlla Moussa bi mu nee yont yàlla soñ bu damaa bëgg sa doom képp yont yàlla soñ bu da ko ne danga may liggéeyal lu toll ji juróom-ñetti at yu manqué tuuti ma soog laa may sama doom xam nga loolu nit ñi dañ defe ni jëmmi mayee doomam lay waaye jëmmi liggéeyal waa ju baax boo bëggee am dara ci moom moom la alxuraan di jàngale moo tax mu jaarale ko noonu moo tax ma yàgg wax ne Cheikh Ibra moom amul lennam lennam lennam loodul doo ko gis ci alxuraan amul baatu ndigal lim nu àndil fu mu ko jële ndigal ndigal moo sos diine ndigal moo jëkk ci diine ndigal mooy moo mujj ci diine boo ko tàmbalee ci malayka yi boo ko tàmbalee ci malayka yi baatu ndigal fi ko Cheikh Ibra jële sori sëñ Aliou Fall Mbawor li tax ñun ñëpp nañu gor gor lu liggéeyal sëñ Touba gënal ñu lepp sëñ Aliou Fall Mbawor dem na ba dik ci Cheikh ibrahim ne ko dama la bëgg laaj ndax yaay sama bay xoolal ma loolu ni mu réy bu dé yaay sama wayjur ma xam ndax kër gu mak lañ ne bu dé doo sama wayjur ma xam kërëm la ko Cheikh ibrahim wax li tax mu jaay njuréelam jënde ko taalib Serigne Aliou Fall Bawol Cheikh Ibra ne ko Aliou mag Serigne Bamba juruñu kenn kenn juruñu loolu nu mu réer te lool boo ko waxee nit mu ne ñuy ay nit ba noppi di wax loolu waaye loolu max naa ma ngay dégg daan nekk fa ma nekkoon Serigne Bamba jëlee ma fa ne ma kay gunge ñu jamono foofee ah mbooloo mi nit ñi xëccoo du dara fa ma nekkoon la ma fa amoon ci taalibe Cheikh Ibrahima nee na bu ñu wàccoon te kenn du ci bu ñu wàccoon ci suuf ku ne jël benn pepp suuf danaa am sama taalibe yu dul am daanaa ñi xëccoo mbooloo fii dañoo xamul fa ma jëm te nee na ñoo ñëpp maa doon seen njiit fa la ma sëñ Bamba fekk ne ma kaay bi nga ma jam sëñ Ali Fall Mbawar daal di dem Casamance gars yi liggéeyal sëñ Touba nañ jaral lu ne daal di soppi turam soppi santam nekk ca marché ba di yenu lu mu liggéey yót ko Cheikh ba mat ay at te kenn xamul ne doomi Cheikh Ibrahima ndax bëgg liggéeyal sëñ bi loolu doomi Cheikh Ibrahima def na ko kon nañu góorgóorlu ci ndigal saa bu ndigal jógatee nañ ci góorgóorlu bu baax a baax a baax ñoo ngi leen di jégalu bu baax di leen balu àq bu baax a baax bëggoon nañu mu gën a gudd waaye tey moom nii la ko yàlla dogale ci ñun noo leen di sant di leen gërëm euh, di leen siyaare